dëkk ak dëkk wala frontière ba frontière. Euh, Mansour bu weesoo li Mouhamed lim yëpp tey euh, nañu nangu itam ne suñu tali yu ci bari baaxul soit dafay xat wat anam bi dina bon bon boo xamante ne te yu ci ëpp dañ koy taf yëngal bu fekkee njiitu réew bi dafa war a aw. te loolu du lu bees Sénégal. te ba léegi suñu kilifa yi dañ ci jéemul effort te foog naa ni tollu ñu tam ci jamono joo xam dañ ci commencé jéem effort parce que bi ñu fi bi ñu fi annoncé dëkk tali yoo njiit réew mi li mu wax mooy autoroute à bi cher na. Mhm. ku mu dis yow nga jël beneen yoon bi. Mhm. mais beneen yoon boobu Sénégalais yi bañu ñu ko jël. mais dafa xat te gis nga li muy causé ci ay accident mais yenn saa yi ma génn ci responsabilité gouvernement bi parce que est-ce que xam nga ne autoroute à péage bi nga xam ni ñetti voies la. Mhm. moo ëpp accident fuuf tali bu xat bi. donc bu fekkee da ngay xool réalité ngay xayma. ni bu fekkee accident dong la ñuy xeex pourquoi tali bu yaatu bi nga xam ne da ngay fay sa xaalis wala faa daw nu la neexee wala daw ci wàllu sécurité moo ëpp fuuf ay accident tali bi nga xam ni moom dañu ne dafa sew est-ce que kon affaire tali la mhm. pour nga génn ko dafay yomb benn deuxième bi ci des Dakar xat-xat bi euh, autopont yu bëri ñu ngi wàaj ko mhm. kere bi Mansour Faye inauguré autopont bi nekk Saint-Lazare inauguré bi nekk euh, Yoff mhm. fii la taxaw ma ni fii wutuñu autopont croisement Cambérène du baax te bi may wax noonu booba benn expert laa waxal ci wàllu circulation mais daf mel kilifa yi dañ ko dégg parce que automatiquement tey ñu ngi tax ñu ngi tabax fa benn autopont boo xam ni Mouhamed mënoo fexe fexe ba dem beeg dikk bi du ubbeeku gën a yaatu parce que cité Keur Gorgui ak CLSA moo doon gën a xat croisement a mhm. croisement euh, poste Thiaroye moo doon gën a xat yooyu yëpp bu ubbeekoo tey parce que dafa am ay autopont ab dëkk buy évoluer dafa am lu muy wane mhm. mais gis nga xat yi dañuy dellu soit ci base bi ak lu man di am Mohamed dangay gis koo xamante ni bii euh, souvent kenn jàngalu ko oto mais bu amee permis am benn sagaru kalandoom dina fexe ba jàngal ci boppam dawlum oto bu tegu ci discipline boo xamante ni bii du mukk jalgati mhm. nga gis koo xam day def vingt ans apprenti wala lu ko jige jàngal oto nga xam ni kii oto bu tàkkee sax xam na lu paan ci oto bi et bu dawalee wane benn indiscipline boo xam ni boo ko tegoon ci autoroute à péage bi sax mhm. mu def lu ko neex léegi kon lan la dañuy delluwaat ci facteur bu njëkk ba bi nga xam comme li Mouhamed wax facteur humain bi. Mhm. te loolu nag mënoo koo déceler lu dul ni da nga génne comportement wu nit ki cest di dire que nit ki ci boppam moom moo bëggul ak dal ci secteur bi mu nekk di yëngu. Mhm. moo tax li xew di xew. mu euh, ba tey ci li xew démb euh, Mansour kilifa diine yi itam àddunañu ci xalif généralu murit yi moom euh, di sàkku ci jullit yi ñu ñaanal way dawlu yi xalif généralu tijaan yi def ab déclaration tey ci suba di sàkku ci ñiy dawal ci tali bi ñu gën a responsable Serigne Babacar Sy Mansour di sàkku ba tey ci ñoom ñu bañ a daw ci yenn vitesse yi waaye nag muy sàkku ci njiitu réew bi mu daal di jël ay responsabilité bu ko defee li ñuy nemmeeku ci ay accident ci tali bi ñu mën koo wàññi bu baax a baax ñu déglu ko sëriñ bi daal lañ koy jaale yéen ñëpp di ànd ñun ñëpp di ko métti lu ñuy euh, jéggalu bu baax a baax ci qualité élément bi da waral di wax euh, ci deuil national bi nga xamante ni njiitu réew bi ba mu nekkee euh, diwaanu Kaffrine moom la ko décrété muy ñetti fan yoo xamante ne réew mi dañuy nekk ci dëj ñu koy faral di nemmeeku yu situation yu mel waaye nag deuil national boobulee lan lay wundu ak itam nan la ñu ko war a dundee dañu ci onda Kalioune Badara Sonko mennum président la république moo am sañ-sañ décréter li nga xamante ne mooy deuil national loolu nag bu mu koy amal mooy bu fekkente ne dafa am njiitu réew bu génn àdduna wala sax mu am ay nit yi nga xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan ci ak conditions yi jéggi dayoo boobu la décret président de la république bi nga xamante ne moo nekk exercer pouvoir rek moo am sañ-sañ boobu daal di décréter soit daf koy def ci benn fan wala muy tànn ay bés yi nga xamante ne dañuy amal li nga xamante ne mooy deuil national day national mandarga bi pour ñu ràññee ko mooy ay drapeau yi nga xamante ne dañ koy wàccee ba mu nekk ci digg bi wala minute de silence bu fekkente ne ñeen ñi dañ koy boole ak li nga xamante ne mooy obsèque nationale rawatina bu fekkente ne dafa am ab nit koo xamante ne maanaam réew mi daf ko ràññee lool ci lañ ko ci daal di toftal naka noonu fii ci diwaanu Sénégal depuis 1960 ba léegi ay day nationale yu bëri daan nañ ko fii décrété Euh, deuil national boobule daanaka askanu Sénégal ñëpp euh, di ko dund méga coalition And Gueusseum ñoom di jaale ak masawu njabootu euh, fanweer ak juróom-ñeent ñi ñàkk seen bakkan ci accident boobule loolee tax sax ñoom ñu jël dogal ni seen gréew ñetti fan bi ñu namoon amal fukkeelu fan fukk ak benn ak fukk ak ñaar bu weerub janvier bu atum 2023 dañu koy dàq ba fukk juróom-ñaareelu fan fukk ak juróom fukk ak fan bu weerub janvier ba tey ci seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñoom ñuy sàkku ci personnel u catégorie socioprofessionnelle yépp euh, ñu fexe ba nekk ci wetu euh, gën kaa néew téeméer yi nga xamante ne dañu ñàkk dañu euh, jëlee ay gaañu gaañu kon ci boobu boobule accident ñeen ñi nekk ca hôpital régional bu kafrin ñenn ñi nekk ci yeneen bërëb bu fajukaay ñu ond ci ci ay leeral ak mbalo Ba Mballo Dia Thiam yore seen kàddu am na fële Kaffrine ba ay bakkan yu rot bakkan yu bare rot ci lu toll nii Euh, fanweer ak juróom-ñeenti bakkan rot fa ak ay blessé yoo xam ni garaaw lañu te suñu naataango yëpp nekk ci ñoom di leen faj leen toppatoo ba noppi ñu soxla deret te ñëpp aussi war nañu war a maye deret moo tax ñu ne dañoo dàq suñu bu ñetti fan bi ba talaata ba lee di ñëw fukki fan ak juróom-ñaar ak alarba fukki fan ak juróom-ñett alxames fan ak juróom-ñeent loolu nag grève la bu nga xamee ni ci secteur santé la ak ci collectivité locale yi parce que fu mu nekk sax bu ñu gëree woon suba wala gannaaw suba xëy na nit ñi sax danañ am ay problème ay kayit pour mën a denc seen i néew ak yu mel noonu. mu ngoog ñoom kon puus nañu seen grève lu toll benn ayu bés moosu mu mel ni dëj bi deuil national bi Sénégal yépp ko respecté. ñëpp ko respecté te lu moo jaadu parce que am nañu habitude di euh, def ay deuil national ci bu fekkee yu mel nii am na parce que loolu moo gën a jaadu parce que euh, musiba bu doy war la mais bu ñu nekkee ci deuil national li koy firndeel mooy ay message yuy impacté conscience nit ñi ñu doxal doxalinu takko jikko ju sell mm-hmm. ay ñaan comme ni ko sëñ Mountakha Mbacké commencé joxe ko ndigal ñëpp nekk ci ay message comme ni ko sëriñ Babacar Sy Mansour defee mm-hmm. mais ay message yu tegu ci kàddu yu dëgg bu bàyyeeku ci ay kilifa mm-hmm. Mohamed da koo joytu sànq ci premier commentaire bi muy ay mesure ak ay motuwaay ay mesures ak ay ndaje yoo xam ne ku ne da ciy wane ni mu toll. Mhm. ay ndaje yoo xam ne dañuy ragalante ay ginnaaw ay ndaje yoo xam ne dañuy raayante et eh, est-ce que yéen a ngi lan moo tax nguur gi jël fi dogal ni montage amatu ci kaw tali bi. parce que y avait amoon ay accident yu metti mooy accident double. Euh, double accident bi amoon ci benn fan ci weeru koor gi diggante Kër Ballalo ak Fatick ba amoon ci benn conseil municipal bu ci génnoon àdduna ci lañ def benn ndaje automatiquement Mansour Faye réaction mooy éliminer montage ci kaw bi pourtant ci wetu fi accident yi am ne am na montage bu fa doon am boo xam ni toute la nuit dafa doon monter xam nga la mooy avantage montage waxuma pour arrêter oto yi seeni ay pièces wala laaj leen xaalis avantage montage mooy dafay intimider sëfo bi dawale maa ak nu ko neex bu xam ni fii am na montage du fa egg ak vitesse boobu dafa am solo yooyu yëpp nag ay points la yoo xam ni. mais loolu ndax du futu transporteur yi ndax ñu ngi fàttaliku ni ñu seen grève bi ñu doon amal seen ay revendications moo nekkoon ñu wàññi montage. mais état du cédé état du seddee Mansour Faye wax nañu fii ba tàyyi ni fii ak dëkk tali bi amul ay montage accident yi dafa yokk man mi personnellement chauffeur yi dañ ma cee linger linger bëgg a dee mais boobu xamuñu ni ñoom taxuñu may saa wax di wax sama cest à fa may waxe man jëlu na leen mun man je parle pour tout un peuple muy kenn nit ki faatu ci accident ñaari nit ñuy faatu ci accident sama yokkul ci oto wala keneen état dafa war a fort gendarme yi nekk ci caserne yi police yi nekk ci commissariat yi dañu war a génn def montage pour sécurité parce que dañuy intimider chauffeur bi nga xam ni dafay dawale nu mu ko neexee du dawale nu mu ko neexee mais boo gisee li tax ma boole loolu ci wàllu dëj bi mooy kenn ku nekk na nga fexe ba ñetti fan yooyu nga xam ni dëj la tudd dëj mooy bàyyi xel ku nekk ci biir suuf dëj mooy ki nekk bàyyi xel ki nekk ci dëgg ki nga xamante ni mun na ràññee wax dëgg ak ñàkk wax dëgg bu amay ñaan ba noppi discours bi ñuy tenir ginnaawam nag tegu ci wàllu dëgg parce que lépp day continuer dox arrêté wu ñu dara deuil national du tax dara taxaw mhm. mais dañoo retenir compte yi delloosiwaat jikko yi defaraat moral yi suñu ay kàddu nekku dëgg ci bu ñu defee fas gis nga mesure bu ñu mën jël te dégguñu teguñu ko ci dëgg wala ñu jël benn mesure pour am ñenn ñu ñu linge démb gis naa benn expert boo xam nee na université euh, prof université la buy jàngale sécurité routière mhm. xam nga lu mu wax mu pour nit ñuy dawal oto Sénégal dafa magget mhm. et pourtant moom daaw ay experts comme ñoo constaté ni oto yi patron yu bëri yu def accident. ay pneu yu bees la ñu monté woon parce que mënuñu dese la ni pneu yu bees yi ëpp ñuy jaay Sénégal ay pneu toggat la mhm. mais secteur boobu intouchable la tudd nguur nag dafa la fort mhm. euh, euh, Mouhamed suñu euh, correspondant dellu si na léegi ci lan mooy deuil national c'est vrai que démb bi ñu ko décrété interrogation yi bari woon na ci mais bien sûr deuil national ab gouvernement ca bopp ak njiital gouvernement moom moo ko jël ak njiitug réew ci bu jee amee wala yenn ci ay jafe-jafe ni catastrophe dal ci réew ma euh, du lenn lu dul drapeau bu ñuy wàccee en berne euh, wane ne Sénégal am na dëj wala tel réew am na am na dëj mhm. mais euh, de national ne cela veut pas dire que ne doo jàngi doo liggéeyi voilà parce que ñu bëri lañ doon def confusion bi te loolu c'est c'est c'est hyper important donc mhm. moment la bu nga xam ne ñun ñëpp dañuy dañuy booloo doon benn communion ensemble ñaanal également sunu ay woy dawlu te je pense que ne ci la ñu nekk mais di saluer également Khady Colonel li waa méga ànd gësëm ak euh, euh, euh, collectivité wala syndicat ëmb collectivité territoriale territoriale yi def muy sursoir seen grève bi nga xam ne bëggoon nañu koo sumb dàq ko ba jëmmi jamono parce que jàpp nañu ne en toute responsabilité tolluñu fi nga xam ne ak situation bi Sénégal di dund accident bu métti bi ñu ciy dem ay grève te amaana sax bu ñu demoon grève xadi mhm. est-ce que xam nga ne ñi bëgg a suul seen ay néew mënoon am jafe-jafe am am permis d'inhumer donc lu fait ñu sursoir ko dafay am solo lool très rapidement ñu daal di xam ne ñoom am nañu ay mbébét te nañ leen bàyyi xel mhm. ndax si ay revendication bokk na ci ay recrutement euh, personnel mais bi ci gën retaan lu xadi mhm. te li olof naan tombel day waral ay gaaf li ci gën retaan lu may dafa bokk ci seen ay revendication décret d'application bu loi bi nga xam ne soxal na wàllu transfusion sanguine nee na loolu moo leen di may ñuy gën a jël prise en charge bu normal ñi nga xam ne dañoo am ay car accident mhm. te xoolal ñi tey ñi génn àdduna accident moo leen Pikine ndax tey ci suba dafa fees dell euh, ña fa euh, demoon wuy ji woo wootepp ñuy yëngatu ci wàllu yokku yaram ñi doon sàkku ci ñu ñëw maye deret ñoom nag ñu am yaakaar bu baax a baax ni ci loolee ñu def mën nañ ci soy ay euh, bakkan ñu ond ci ak ajaratu Aïcha ak Madani Marega lu ñu xëy de transfusion sanguine démb lañ doon programme di xool ñun association bi nan la ñuy def ba def Kaffrine sans transfusion sanguine appel bi mu def moo tax ñu ñëw tey teewoo fi tey jii. étudiants yi itam des desuñu gannaaw. ñu gën a indi aussi mooy accident boo mën démb ñu koy méttilu aussi di ñaanal yàlla ñi yàlla jël yàlla yàlla xale la àjjana. maa ngi woo ndaw ñëpp ak képp ku dëkk si dëkk bi ak képp ne si dëkk bi aussi soo ko mënee nga ñëw fii maye sa deret pour sauver ay bakkan. am ci ñoo xamante ni ñoo ngi tëdd lalu hôpital soxla deret. kon bu nu wootee tey journée de doon a sang doon mu dafa waroon a doon boo xamante ni eh, journée nationale la war a doon. député Guy Marius Sagna faral di ñëw di maye deret. ay rafetlu bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo organisé ndaje bii tey. muy surtout nañu ñëw nañu génn te bañ ko def mbiru tey rek suba nañu ñëwaat gannaaw suba nañu defaat ba pare ku maye deret comme man tey ngay góor fii ak ñetti weer nga ñëwaat. bari nañu tey ndaw yi ñëwu si woote kuréel yi ak it kilifay réew mi taxaw nañu temm maye seen deret ngir sauver ay bakkan. mu nga euh, Mouhamed démb sax la ñu ko tàmbali euh, ndaw yu bari bëggoon maye deret waaye xëy na antuwul woon dem waaw di rafetlu xaat yi tout d'abord élan de solidarité bi ñu gis ci sénégalais yi ak spontané euh, bi nga xam ne gis nañ ko ci ñenn ci ay sénégalais fas yéene dem maye ji deret parce que accident Euh, su amee li njëkk a euh, euh, wax wala di ko sàkk wala di ko digle mooy ku maye bëgg ku mën a dem maye deret na ko def parce que mhm. kii accidenté xam nga ne dafay perdre souvent deret gu bari mais di rafetlu bu baax a baax population Kaffrine et environ yi nga xam ne ñoom def nañu ci les premiers pas ci jour ba ca saasa ba accident ba amee ci la ñenn di organiser wu dem ca Kaffrine c'est vrai que nag CNTS bi yi fi nekk Dakar mhm. on aimerait quand même ci dimanche bi euh, ñu teg ab dispositif même bu dee dimanche la ñu ñu teg ab dispositif bi nga xam te dañu mën a accueillir parce que bul fàttali ne démb ay sénégalais quitté woon nañu seen i ay kër dem dem de façon spontanée euh, ci centre national de transfusion sanguine bii nekk Dakar ngir maye deret mais ba ñu demee dañ leen ne centre bi du mën a ubbi lu dul tey di altine donc je pense que ne de façon spontanée waroon nañu mën a teg dispositif bu nga xam ne daañu mën a accueillir mais euh, voilà euh, def nañ ko tey macha allah rafet na mhm. donc sénégalais yi nañu continuer dem di maye deret ndax jamono ji nañu jàpp ne am na ñu ko soxla te jàpp jàpp leen ne ku may deret ku ne euh, soowee nga kat ngoog Mouhamed ñu àddu nag jëmale ko ci leneen wax ab ci ab secteur muy yarum euh, ginaar gi bu ñu sukkandikoo ci ay statistiques ci fukki fan euh, fukki at yi nga xamante ne moom la weesu Sénégal def nañ ci ay jéego yu am sol ci production bi ci ginaar gi ci muy ndawal li ñu jóge ci juróom benn fukk ak juróomi junni jàll ci téeméeri junni ak fanweer ak juróom ci bu fekkee production production bu nen bi la bi ñuy jëfandikoo ñu egg ci lu tolloog benn milliard ak ñetti téeméeri junni bu ñu sukkandikoo kon ci ay chiffres yoo xamante ne ni ki ci suba la ko jëwrin bi ñu dénk wàllub élevage production animale daal di xamle ci ab atelier bu ñu amoon doon fa jukki li nga xamante ne moom moo tukkee ci ab jongat bu initiative prospective agricole et euh, rurale ñu on ci ak Aliou Euh, ndawal li nga xam ne moo jóge ci ginaar jóge na ci mille 000 tonnes ba 135 000 tonnes maanaam yokku na 107 pour cent loolu am na solo ndax liggéey boo xam ne ñoo ñu nekk ci filière bi liggéey na ko nen yi nga xam ne également dañ koy jëfandikoo njaayeen yi bëgg kool ñoom tamit jóge nañ ci ci biir boobu 2012 ba 2021 ci 550 millions ci ay unité ay nen ba ñëw ci euh, daanaka un milliard trois dafa am lu fi nekkoon acteurs yi def ko waaye politique bi mu jël dafa baral daal di tax donc ñu gën a baral jéego yi ba lii mën a am jàngat euh, boobule IPAR daal di def ñu nemmeeku ni Sénégal ndam lañu ci am ci euh, wàllub yarub euh, ginaar li ko ko may bokk na ci ab environnement bu baax condition yoo xamante ni itam dafa mucc ayib daal di gën a ñoŋal investissement bi ci secteur bi IPAR nag daal di sàkku itam ñu gën a ñoŋal interprofession bi daal di gën a taxawal itam plan de relance bi ba tey ñeel secteur boobule boobule étude internationale yamalewuñ ko ci réewub Sénégal amal nañ ko Kenya ak ànd ci ak professeur Cheikh Ly muy chercheur foofule ca IPAR. mais woon nañu ni que Sénégal am nañu benn situation boo xam ni euh, bi grippe aviaire amee nguur gi dafa dogal ni importation yàpp ginaar warul ñëw wante loolu am na ni mu dimbale ñi nga xam ne ni ci secteur yi li ci tegu interprofession bi technicien yi ñoom jot nañu dox seen wàll ci liggéey bi ngir Sénégal mën a euh, euh, développer koom-koomu aviculture bi gën ko dëgëral euh, looloo tax ci jamono yi am na ay jafe-jafe wante jafe-jafe yi mënoon na gën a ëpp bu dee li nga xam ni jot nañ ko tabax ci secteur bi amul te ci bokk ponk bi am maanaa ci tabax bi mooy plan bi ñuy wax PRAVIS plan la boo xam ni dafa war a fexe ba développer aviculture bi